من حكتي هيوتين غنغم قرشي سبو دني كان وقت بدن اسلما جيت برندان koye maɗa ko ɗe qorosiyo hami taccama yami lumbaca lemi jiggito tule ceene ɗay bata ngam giɗam qorosiyo min deni ja rata annabi jami heftayalo dada danda ja ngoko kanko tan kursiyu jommande wi holi jomimo ɗonnotiɗa fittali nde wi fittanduma kursiyu jommande i tenuru muɗumo tagruma o takfitago je nuru ma korosiyu ayi jaɓe ka tuɗi annaba ɓe no ndidori e nulaɓe ha ɗoɗe keɓdada korosiyu hami taccama jemi lumbacale mi jiggito tulecene ɗay batagam giɗam korosiyo onon bo mbaɗeni mawnini rasulallahi alhaji saydou nouru ba bon alhaji mouhamadou lamin wi o wi he yimɓe keɗoɗe lemsede goɗoɗe kala nedi jeɗoɗe ine ɓeyda moƴƴere ko o jammo ɓuri mum kumpani moni kala koye makko jibina ɓuronaɗo windere soko allah haali oɗo ko jondomi nelmomi koye mon giɗo am e moƴƴere hay sinno añoyi heɓerɓe hersuɓe ñane darga perduɓe ma o jaale windere ɗum ɗo ko tindol jeyi ɗum ko kisara o jamma weñira ma leydi jilɓere sanamuji jañira poyon ɓe ñifira majon ɓe korira ha yori bakkere tadi balɗe jeyngol hubbani fetere heltinde abbere taccani goddol jaremmo saabi mum kala hunde tagira ɓurnaɗo rojara jangta e deftere keɗeɗemi jangto ɓurnaɗo joom wone kawniɗo joom baɗe joom dadgo kala ɓore holi gando annabi jambaro annabi woli dokko annabi kumnoyɗo moƴƴere kala gonɗo annabi koyema o jappili lasliji koyema ƴiƴame hetere nelanoɓe koyema waliyaɓe koyema wodboji koyema towal ɓe gabbiri kala gonɗo koyema ɓi moƴƴo koyema kala dakko koyma aduna el ahara jom sirru batiya jom sirr ogoliga jom wendu kawsara tefunowo windere jom foddeñade fo notiɗo jomum yi allah wahya mo waldani mettere giɗa allah laabtuɗo la, ɓimoƴƴo dontuɗo haqqeji tottuɗo diwtoyɗo majjere salli ala mouhammad waliyaɓe fo goni kono lewrolo kote jani yikkode kono lewru ndugoti juuɗe dow ko waliyaɓe fo goni kode kono lewru ndugoti jaani waliyaɓe fo goni kode kono lewru ndugoti juuɗe dow waliyaɓe fo goni kode kono lewru ndugoti jaani waliyaɓe fo goni kode kono lewru ndugoti ko dewe e baani waliyaɓe ko goni kode kono lewru ndu goni juuɗe dow so ummima lewru ko dewe e baani waliyaɓe ko goni kode kono lewru ndu goni ja wallay ta cowa hande رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني وصلى الله وسلم وشرف ومجد وكرم على أفضل الرسل سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن كبريت الأحمر مولانا السيد الشيخ أحمد التجان الفاطمي الحسني الأحمدي ممد وغير مستمد ومن يقس أميرا بمعمور عليه غطاء أعني به أبا العباس قطب المكتوم الذي بان ولايته كما قال مام بروم بونيكاري قطب الوجود الذي ابدى ولايته ربي وعادم بين الماء والطين مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدولي ما فاي نيو عليك السلام ورحمة الله تعالى والله دنجين صف سين بيري با أتنا لين وخوا السلام ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gi di ñaan yàlla tabaraka wa taala mboolem li yàlla dëxëñ ëmb ci guddi gi yàlla nako yàlla sédd njabot gi fi teewe waaye yàlla nako yàlla sédd fu njabotu julit muna nek ci kaw suuf yàlla nako yàlla sédd xetu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te la shakka fiihi yàlla tabaraka wa taala danañu ko defal di jiital ci nuyu gi ak ziyaar gi suñu wayjur suñu sëriñ suñu soppe di ceerno xamidu yaraban atala allahu umrahu wa abaqa di ko wàccee wàccuwaayam di yéeg di jaar ci moom di ziyaara suñu xalifa Thierno Mouhamadul Bachir Tall di dalal rek gan yi ci seen zaawiya maam Cheikh Alxaaja Umar al futi yu radiyallahu taala anhu ci guddi gu tedd gi di guddi laylatul qadri di ñaan yàlla tabaaraka wa taala yal nañu yàlla sédd barke guddi gi mu mel ci ndigalu Ceerno bëgg nañu ñun góor ñépp ñu defar suñu toogaay comme ni ñuy toogee du julli ñu defar sàppe bi ñun ñépp ñu defar suñuy toogaay sàppe bi mu organiser wu ndax li ñu bëgg a def incha allahu taala ci anam googu lay mun a sottee jigéen ñi tamit kadalik ngeen toog toogaay gi nga xam ne fa tabaarakallahu li ñu bëgg a def yàlla danañu jàppandal ñu defee ko noonu ndax yii nii bëgg nañ ko jaamoo yàlla ci guddi gi ban ak ban ak ban bi ci njëkk incha allahu taala danañ fi wàccee danañ fi jàng alquran al karim léegi ci biir njàng mi bu ñu noppee danañu def istighfar muy astaghfirullah astaghfirullah baña wax nak ni ñenn di wax astaghfirullah xaw astaghfirullah astaghfirullah astafirullah astaghfirullah bu ñu noppee ci kalima boobu danañu jàng salatul fatihi bu ñu noppee ci salatul fatihi dañu danañu def la ilaha illa allah bu ñu noppee ci la ilaha illa allah danañu def ya latif lol nak ci ndigalu cierno la ñun ñëpp ñu jàppalante suñu biir ñu organiser toogaay gi bu ko defee sàppe bi nga xam ne mooy nekk ci kanam xale taalibe yi ak ñiy jàng alquranul karim ñu nekk fa ñu sedd leen téere bi deuxième sàppe bi ñu organiser ko ñi war a def istighfar bi nekk ci sàppe par sàppe mboolem li ñu war a def incha allahu taala ñu defee ko noonu kon bu ko desee bu ko defee ci ñun la des ci lan mooy ñu organiser wu toog comme que ndigalu kilifa la kenn ku ne seetal rek ni nga war a toogee ñu tooge ko noonu incha allahu taala ñu continuer programme bi. basiruna warisun an jaddihi umaru basiruna warisun an jaddihi umaru labu رحمته فيه فلاهكم من سيختبر بصيرنا وارث عن جده عمر بصيرنا وارث عن جده عمر يا شمس يا بدر يا نور الزمان ويا سعد الأنام ويا منصور يا وزر بشيرنا وارث عن جده عمر بشيرنا وارث عن جده عمر أبقى كرم بالورى زخرا لنا أبدا بجاه من ذكره يقضى به الوطر مسيرنا وارث عن جده عمر مسيرنا وارث عن جده عمر أبقى كرب بالورى زخرا لنا أبدا bijaahi man zikruhu yuqda bil wataru mbokk yi ceerno nee na gannaaw sant yàlla mawlaana tabaraka wa taala julli ci sang-sang yi mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na nekk ci suñu sëriñ Mawlana Seydina Cheikh radiallahu taala anhu mu nekk it ci mboolem ak xalifam ak ay muqaddamaam ak ay taalibeem yàlla nañu yàlla boole ci njaboot googu ñi ñaan yàlla tabaraka wa taala ngeeramum gogu yalla nako yàlla sotti ci suñu khalifa di khalifa sayyidna sheikh radiyallahu taala anhu di suñu wasila di sheikh al-hajj umar al-futi radiyallahu taala anhu ciernu neena gannaaw sant yàlla julli ci yonente sallallahu alayhi wa sallam ñaanal khalifa yoyu mu ngi wax mbolo mi yeb assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala li yàlla denc ci biir nuyoo googu yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñépp bi jaahi rasulillahi alayhi wa sallam ceerno nee na bu loolu wee mu ngi jottali nuyoo suñu sëriñ suñu wayjur di suñu kilifa di Ceerno Mouhamadul Bachir Muntaqa Taaha Cheikh Al Hadji Umar Al Fuuti radiyallahu taala anhu kilifa gi nga xam ne bu yàlla musaan dagal guddi yii mu fekk ñu ci kaw suuf ca moom lañu doon daje di màggal guddi yi nee na ren ak daaw ñu ñépp xam nañu ngànt yi tax ba defewuñ ko foofu moo tax mu ne ren mu ñëw ànd ñun di ñu wéttali fii ci zawiya mawlana cheikh alhaaji umar alfouti radiallahu taala anhu ceerno mu ngi ñuy nuyu di ñu ziyaar di ñu ñaanal di sàkk ci ñun tamit ñaan ceer na ngi feeñal yi tamit nañu yëg ni mu ngi ànd ak ñun ci guddi gi lu nëbb ak lu feeñ mu ngi ñaan mawlaana tabaraka wa taala lu ñu jaamu yàlla ci guddi gi mu néewal la mu bari yàlla na yàlla boole nangul ñu loolu yal na yàlla yombalal ñu ñu daje fii nii déwén fekk dara wàññeekul ci ñun lu dul ay bàkkaar mboolem lu war a yokk ci ñun tamit yàlla yombalal ñu loolu yokk ci ñun ñu nit njaboot gi tamit ñu ngi delloo ci kilifa gi nuyu di delloo ci moom tamit ab ziyaar nee na sëriñ dana ñaanal taalibe waaye taalibe yi tamit dana ñaanal ab sëriñam ganduɗa sa heeɓi haaji kolla ɗum allah humta so a ñaagima duwa o o ma allah jaabo ñaagade allah yo allah ɓoynuma ɗo ɗum ko intérêt ma amen almuɗo ko na koo xam ne saa yoo amee soxla nga tawatlu ko ci kanamu sëriñ bi mu ñaan yàlla yàlla def ci sutura mu sotti nga sàkku ñaan mu ñaanal la yàlla nangul ñaan yi ne yow taalibe tamit war nga góorgóorlu ñaan yàlla tabaraka wa taala kilifa googu yàlla na ko fi yàlla yàggal تيرنا نينا خمنا نكلف لموي فار فار فار فار خمنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولغنا نك كلفة يالله تبارك وتعالى نه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه مبولم فجلت نك يانغي وخ اللهم صل على سيدنا محمد وسلم نانا لي li ngay wax ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim di julli ci moom ah defee woo ko nga teub am ci yiw am ci mbax waye mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu am yàlla may nako ba nopi li yëpp dafa nek tektal wala jàngale ci xet gi ne nit lo reuy maqama maqama maqama weesoo nekk doomu aadama am nga soxla ci nit ñi war nga am yëg-yëg tamit ci doomu aadama yi nee na bu loolu wéyee moom ci jëmmi boppam moom no mu ngi ñuy nuyu di ñu ziyaara di ñu ñaanal waaye tamit mu ngi sàkk ci ñun tamit ñaan mu ngi sant yàlla bu baax a baax waaye tamit mu ngi santal yàlla njaboot gi tamit gu baax a baax nee na woote jafe na waaye la ko gën a jafe tamit mooy ñu wuy si la te it si jafe na waaye la ca gën a jafe mooy nga ñëw ñëw ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala ñun ñëpp wuy nañu woote yàlla ngir jëmmi yàlla ñun ñëpp ñu daaji daje fii ci zawier bi di jaamu yàlla di ànd di jaamonoo yàlla tabaraka wa taala ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala moo tax mu ñu ci ziyaar di ci ci ñaanal di sàkku tamit ci ñun tamit ñaan fa lay jaar nuyu ñi nga xam ne ñooy magu zawier bi waaye tamit fa lay jaar nuyu waale ñi nga xam ne ñooy magu quartier bi mbokk yi ñu dimbalante ngir jëmmi yàlla ñu dimbalante bu baax a baax Ceerno nee na sang yii mu tudd nuyoo googu mu ngi koy jaaleel ci kilifa yi nga xam ne ñoom la tudd léegi léegi muy alxaaji Cherif ña Kaalidu Samba ak Demba Yero ak professeur Abdoulahi Seen mii nee na ñii ñooy magu quartier bi ñoom ñooy magu zaawiya bi nee na nag ñu ciy beral nuyoo di jagleel tamit ki nga xam ne mooy Thierno Aliou Niang ñi nga xam ne ca dëgg-dëgg ñoom ñooy magu zaawiya bi ñoom ak Thierno Ahmadou Sy ak Thierno Bacca Ndiaye ak Thierno Ibrahima la ñi nga xam ne ñoom fii lañu ñu nekk toujours ci biir zaawiya bi Ceerno nee na mu ngi leen di nuyu di leen ziyaar bu dee ci wàllu jigéen ñi bari nañu lool macha allah soxna Mariam njaay soxna Kumba Ba madam Wan ak soxna Raki Daf moom muy madam Daf tamit bu sitee tudd ñett ñi rekk neena mboolem kuy jigéen rek. duggalaale na la ci biir nuyu ñooñu mu ngi ñaan yàlla nag yal na yàlla yàggal suñu ànd gi lu yàgg lool maasha allahu tabaarakallah ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu nekkandoo fii ci àdduna ñu ànd ngir jëmmi yàlla ak yonent bi muy jokk ci ñoom mbokk yéeni tamit ngay ngeen di jokk ci moom mbokk li mel ni cer mohamadul bashiru so cer na zakaria so ak cer na ahmad baro ndongo ak cer na jibi ba pine weeti ñoom cer na sharif diallo cer mohamadu kone ak njaboot gi yépp cer na nee na daal bàyyiwul kenn li mel ne ñoom Thierno Abdallahi bëri ñoom Thierno Abdallahi añ dañu wax ne daal ku lim juum wala ku lim nga guddal nee na nag ñuy beral tamit muy Cheikh na Ahmada Tidiane Touré mi nga xam ne moom moo jiite njaboot gi salaatu tasbix bii moom moo yore daara alquranil karim gii Thierno nee na fàttewul nag imam dudu sek bi bis weeru koor gi tàmbalee ba fii ñu toll tey moom moo fi jiite nawaafil yi at muné non noonu lañ koy defee tamit nee na xam na ni ngantu moo ko téye waaye nag moom doon waxtaane waxtaan bi moom ak rakkam Ceer Mouhamadul Bachir ak magam Ceerno Muhammadu ak mbollem magu zawiya bi yeb ñom ño fi doon nek ñuy daadi dekkal guddigi nek ak mbokk yi ak njabot gi yeb neena na Jax nak neena ki jambar la neena soppe deug deug maulana Cheikh al hadji Umar al futi radiyallahu taala anhu la neena soppe la tamit nitu yàlla yeb nee na sant ñel na yàlla nee na tamit soppeem la dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla na ko yàlla fay yiw bu loolu jàllee nee na waxoon nañu sànq ngëneelu laylatul qadri nee na laylatul qadri kenn munta wax ay ngëneelam ba noppi ndax dafa nekk ci biiru weeru ngëneel weeru ngëneel bi nga xam ne mboolem liñ ci liggéey yàlla moo koy fayal ci jëmmi boppam moom yàlla tabaraka wa taala wax na ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa nee na koor moo ko moom man maay fayal sama bopp képp koo xam ne woor nga fukki njëkk yi képp koo xam ne jullit nga yàlla nee na ma yërëm la ci fukki yu njëkk yi fukk yu nekk ci digg gi ma jéggal la mboolem bàkkaar fukk yu mujj yi ñu daal di lay goreel ci biir safara nee na bu yemoon foofu rek nee na soxla jullit bi yépp daal na faju ci ñetti yooyu nee na nag rawatina nag yàlla dogal ci biir weer bi ngëneel yu bëri yu bëri yoo xam ne kenn mënu kaa takk bokk na ci xare badri ci biir weeru koor la woon fukki fan ak juróom ñaar ñaareelu at ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi tombek bisu altine ñii nee nañu bisu aljuma la waaye daal li gën a fës daal mooy bisu aljuma jullit yaa ngi woor te it bëri wuñu yorewuñu arme gu bëri ëpp ñu ñetti téeméer ak fukk ak ñett nee na yeefeer yi nekk nañu junni doomi aadama ñoom am nañu arme gu mot am nañu alal am nañu doole ñu ngi jóge Màkka ñu ñëw ba jege Madina ñu bëgg nag daal di dal ci yonent bi sallallahu alayhi nee na ci biir waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaaba yi yonent bi daal di wax ni moom ak ñu mu àndal balaa ñuy toog di waxtaan ba ñooñu daal di dal seen kaw ñoom tamit nañu génn gàttandiku gan yooyu ñoom ak ñàkk bari doole ñee yore nañu ay fas ñee am nañu ay gileem. ñoom amuñu ay fas amuñu ay giléem ay tànk la ñu doon doxee waaye nag ndimbalu yàlla bu ñëwee nee na loolu liñ koy tudde mooy ndimbalu yàlla nee na seen lim gi rek nee na loolu ndimbalu yàlla la ñett téeméer ak fukk ak ñett nee na li muy li muy tënk ci kàddu mooy àll awnu minallaahi iskay al awnu ndimbal minallaahi fa yàlla lay bàyyee ko boo limee adad xarf yi nee na loolu lim googu la lay jox boo ne it nasru lum lay jox mooy ñetti téeméer ak fukk boo ci boolee araf yi mu daal di nag mot ak fukk ak ñett nee na yàlla nag bu daal di tàbbee nag ci ndimbal nee na crée da ciy créé condition yu ne yàlla daal di koy dimbal moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i ay saxaabam ñu daal di nag demine dóor yéeféri màkk yi bis boobu nee na bépp jàmbaar bi nekkoon ci yéeféru màkk yi seen kàngam yooyu nee na bis boobu lañu ñu faatul bis boobu lañu ñu daanu nee na uh, daanu gi su yemoon ci abu jaxli rek nee na lislaam gañe na ñoom walidu ibnu mugira ak ñoom xaaris ak ñeneen ak ñeneen bis boobu ceerno nee na ñoom ñëpp ci la ñu daanu ñu dee ñoom ñëpp tamit ñu tàbbi safara تيرانين لا تامبالي بوبو دارا بول اسلام مو يكاتيكو دوتول واتي تي سوف يالا مو تي تابي دي تي وير بي ما الله سانت نيالنا يالا فتح مكه بي ني ديمي با فتح مكه bi muy am yalla dogal na mu ngi tombe ak wéru koor bobu yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam bis bi muy dugg nee na bis boobu wuute na ak bis bi nga xam ne moom lay génn màkkatal mukarram bi muy génn màkk ci ndigalu suñu borom fekk yéeféer yi def nañu seen complot ñu ne guddi googu dañuy daal dal ci moom ñu dem ca daaru nadwa ñu waxtaan ne nan la ñuy a def nee daal pexe mu mujj gi nga xam ne ci la tënku na eh, ne giir gune daal ci fami biir ci fami Quraysh nañ ci dindi benn waxambaane nga xam ne waxambaane gu dëgër dëgër la ku ñeme ñoom ñëpp fami bu ne génnee ñu bàyyi ba sang bu tedd bi daal di tëdd ñoom ñëpp ñu yëkk yëkkatndoo seen i jaasi ñu daal di koy daggata benn yoon ñu cor ko mu dee nee na bu fami yonente bi bu alayhi wa sallam jógee ñuy wax waxu yonent bi nee na mënut a xeex ak bi yëpp nee na luy des rek mooy waxtaan bu ñu waxee ne li ciy topp mooy ñu génnee iddiyee rek bu ñu génnee iddiyee wax famille bu ne nga cotiser li nga xam ne moom lañ leen war a fay. boobu nag la ko yàlla jox ndigal ne génnal dëkk bi muy dem mu woo Sayyidina Aliyu radiyallahu taala anhu mu ne ko tey damay génn dëkk bi ci ndégalu suñu borom bi subhanahu wa taala fii nag ma doon tëdd tëddal comme ni ma doon tëddee càngaay bi ma doon sàngoo nga sàngoo ko bu ñu dikkee ñu foog ne man maa fi tëdd bu ñu ñëwee ñu daal di lay rey sayyiduna aliyun jàmbaar lislaam ne nangu naa te dégg naa wax ja ah Thierno nee buñ ko waxoon ku mel Zakaria tey ah Seydi Sow Thierno nee na loolu nag li muy feeñal yàlla gu wér nee na yàlla gu wér bu feesee ci sa biir xol nee yow dootoo gis lenn lu yàlla waaye nag yonent sallallahu alayhi wa yàlla xamal na lu fàddu mu Seydina Ali tëddal fii ba bët suba diw de dénkoon na ma temps ak temps nga dem delloo ko loolu diw tamit dénkoon na ma lii ak lii nga dem delloo ko nee na diw nag daan naa ko yoreel boo fay boo xëyee nga fayal ma ko boo ko defee ba noppi nga daal may fekk si Madinatul Munawwara nee na loolu tamit mu ngi xamal ne Seydina Aliyu gaa duñ la de. يالا دغال سيدنا علي يو جيفي كو نيكو رسول الله ديغلي وون مو نيك فا با لي صوب بوب نك لا دادي جوك مو جانغ سوره ياسين فاغشيناهم فهم لا يبصرون فك يفر ييب نغي نلاو لين نيوم نيب نغي نلاو مو دادي كوي ويستي سيني بوب يي مو صلى الله عليه وسلم عندك ابا بكر ñoom ñaar rek ñoo demoon waaye nag bi fatxu makka di dikk ñu ngi dikk ñu ngi nekk fukki junni doomu aadama nee na waa makka nag bi ñu yëgee riir sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di tiit moom nag sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam borom yërmande la borom teraanga la mu ne leen waaye waaye képp koo xam ne dem nga fatu ji ci kër Abu Sufyaan ne kooku daal bu leen ko laal képp koo xam ne mu ngi ci biir këram bu leen ko laal bu leen laal mag bu leen laal ndaw bu leen laal jigéen bu leen laal yit koo xam ne tamit dikkul ci yéen pour xeex waaye na ku xeex ak yéen aywa kooku moo tooñ bi yàlla dogalee mu dugg màkk yéeféer yépp ak waa màkk ñu ñëw ci kanamu sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di koy xool mu ne leen lan ngeen foog ci man li ma leen war a def kenn ku ne muy wax mu ne déedéet man daal jéggal naa leen yéen ñëpp li ngeen ma musa wax jéggal leen li ngeen musa def jéggal leen. yéen ñëpp dem leen ngeen ñibbi seeni kër du ma xeex kenn kii mooy sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu bi turimu bil axshabayni walaki man min karami jazakumullah nee na lii ci weeru koor la xewoon alquranil karim bii ci weeru koor la wàcc bàyyi ko ca xadratul qudsi ñëw ci laxul mahfuz ñëw ci xolu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw gi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jibril di ko andil aaya par aaya waxtu boo xam ne aaya bi war na wàcc noonu la demee bokk na ci laylatul qadri mi xayrun min alfi shahrin loo ci def yàlla dana la fay tiyaaba moo tiyaaba boo xam ne ëpp na junni weer nee na sant ñeel na yàlla julli nañ fi salaatu tasbih salaatu tasbih yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxoon bàyyu taxam muy sayiduna abbas bokk na ci ngëneelu salaatu tasbih mu ne ko salaatu tasbih bii boo ko defee mboolem say bàkkaar yu nëbbu yu feeñ yu njëkk yu mujj yi nga tey yoo teyul yàlla jéggal na la ko boo mu bis bu ne defal boo munul semaine bu ne defal boo munul wer mu ne defal boo munul donte ne benn yoon eh, munul at mu ne nga def benn yoon boo munul nag donte ne benn yoon eh, ci sa dund waaye nga def ko waaye eh, alhamdulillahi ñun def nañ ko yàlla dana ko fulandi ci mbaaxam ba mu ëpp juróom-ñetti fukki at mooy alfu shahrin nee na lii day na sant yàlla kon nag Ceerno nee na yàlla na yàlla nangul ñu Ceerno nee na am na loo xam na ci ci biir saar bi nga xam ne joxoñ laylatul qadri nee na la jullit gune war desal ci biir xolam ak xelam mu def ko programme muy salaamun hiya hatta matla il fajri ceerno neen dañu bëgg rek mu gaaw comme que waxtu bi moo xat inna anzalnaahu fii laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri tanazzalul malaikatu nee na malaaka yi dañuy wàcc ci biir guddi gii ñu ñuy indil nag mboolem yiw nag bokk na ci yiw yooyu moo ne jàmm rek salaam nee na jàmm rek la ñu malaaka yi di indil bu dee noonu la nag yow nit ki ñu ngi lay indil a ah yow tamit war nga gàttandu jàmm googu nooy gàttandoo jàmm jooju mooy nga nekk nitu jàmm nga dox jàmm nga wax jàmm nga jëf jàmm nga xam sa diine gi bi ñu tuddee diine lislaam mooy diine jàmm képp koo xam ne tàbbil nga ci lislaam lu dul jàmm nee yow xamagoo sa diine ndax lislaam ñu ngi ko dindi ci turu yàlla bu tudd salaam salaam mooy jàmm yàlla mooy jàmm mooy borom jàmm ku mu jox jàmm nga daal di am jàmm kon nag Ceerno nee na yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla def ubbeeku ci réew mi yàlla na yàlla def ubbeeku ci réew mi na yàlla def ubbeeku ci réew mi yal na yàlla def déggoo ci réew mi yal na yàlla dogal déggoo ci réew mi yal na yàlla def déggoo ci réew mi yal na yàlla def déggoo ak jàmm ak sutura ak teraanga ci suñuy kër suñuy njaboot suñuy jëmmi mboolem li ñu yëkkati yal na yàlla yombal loolu mu def ci jàmm mboolem li ñu bëgg yal na yàlla loom yombal loolu mu boole ci jàmm mboolem li ñu ragal يالنا يالنا مصل نتلول لنب أقل فين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها لا جن نسنغب تدي صلى الله عليه وسلم مننا سنغبي بلية القدر دكي يالنا دوغل ما فاكيكو لو ماي ديغل ما داف كو تي غودي يونتبي صلى الله عليه وسلم ن عائشه bu guddi gi dikkee waxal allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa faafu anni walla ci beneen riwaaya allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni benn bon benn yoon doy na ña ñetti yoon ak lu ko ëpp lépp doy am solo mooy ñu nangul la yal na yàlla nangul ñu waay Ceerno ne na yàlla nangul ñu yal na yàlla nangul ñu yal na yàlla nangul ñu yal nañu yàlla may ñu fekkee déwén nii ak i at yu bëri yu bëri yu bëri fekk ñu ngi dund ñu ngi wér ñu ngi tamit wérle yal na yàlla wéral ñu mu dëgëral ñu ci diine lislaam mboolem fi fitna nekk Mali Burkina Faso ak Niger ak Nigeria Tchad Soudan Somalie eh, ak daal daal fu fitna ta nekk yal na yàlla fay fitna yooyu ñu nit jàmm ji nga xam ne ci lañu nekk yal na yàlla saxal jàmm ji fii fitna na nekk suñuy dégg-dégg rek yàlla bu mu doon suñuy tëg bët eh, nee na corona bi ak lu dul corona. lépp loo xam ne day lore yal na yàlla teggi loolu mu andil ñu jàmm mu andil ñu sutura ñu ñëpp ñu daal di ñu waxandoo donte ne ñetti yoon la allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عن الله موي اللهم يو يالا انك نك يو يالا عفو عفو ادي جيغل nga كريم كريم كو تيد nga تحب العفو تحب العفو بغ nga سا جام بو خامني دالاي خولي بوتو جيغل ايوا فاعف عني ايوا فاعف عني كون نك جيغل ما يالا bu la yàlla jéggalee ne sa aduna jag na sal àllaaxira jag na kon nag yal na yàlla jéggal ñu yal na yàlla baal ñu suñu ñu way dawlu ak ñu génne adun ci corona fu ñu mënta génne aduna rek yal na yàlla yërëm leen jéggal leen yal na yàlla tàbbi leen aljanna yal na yàlla dogal daal seeni sarax yàgg ci seeni loxo yi njaboot ñu ni tamit yàlla bàyyi ñu fi ba si kanam yàlla musal ñu suturaal ñu jàmmal ñu yal na yàlla nag ubbi bunti wërsëg yi yal na yàlla ubbi bunti wërsëg yi yàlla bu ñu jaaxle yàlla bu ñu jaaxle yàlla bu ñu jaaxle yàlla bu ñu jaaxle suñuy jëmmi bopp yàlla bu ñu jaaxle suñuy soxla yàlla bu ñu jaaxle suñuy dépense yàlla bu ñu jaaxle suñuy dépense wax leen amin góor ñi yàlla buñu jaxla jaaxle suñuy dépense yàlla yàlla may ñu wërsëg gu yaatu mu ànd ak sutura bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatihi lima ughliqa walxaatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات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 عدد الأنبياء دفنا صلاة الفاتحة نفكي جني أجنار دفنا لا إله إلا الله 124 ميل ممتمد يا لطيف يا لطيف جني جني نفنك نيب بلن لما ورنا نيك تيمير جني ممتد بنيون رك doyon na kon nak yalna yalla nangu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi sant yàlla. quartier bi ñu ngi sant yàlla. njabootu néegu yàlla bi tamit ñu ngi sant yàlla. ñu ngi santal Ceerno tamit yàlla. ñu ngi lay bëggee lool. ñu ngi lay ñaanal. lu bëriwul. waaye lépp yàllaa ko yore. na nga xam ne lépp Ceerno yàllaa ko yore. lépp mu ngi ci loxol yàlla. liñ lay ñaanal. yo allah wurnum yal na la yàlla dundal o faggo daro loo fàggu mu taxaw faggo nee na nga fàggu te taxaw on mooy loo fàggu yàlla def loolu tamit taxaw o jibina daro o nee na mu fàggu mu des daro mu taxaw mu am am njaboot daro ñu taxaw kanko daro nee moom mu taxaw mu taxaw tamit sëpp njaboot gi ak li nga xam ne moom la fàgg woon moom nag ak famille bi yëpp ak xeet bi yëpp ñun ñëpp jullit yàlla yëpp ngir barke yonent bi sallallahu yàlla bàyyi la fi lu yàgg ñu yàgg ci ñëpp ngir barke yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu may fekkee at yu bari barke yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Maodo ne maninun yow Maodo ne manunun xay Maodo ne wa miftaxun Maodo ne jawaadul mus Maodo ne munaajan murtadan Maodo ne wa aynul Maodo ne yubahitu man Maodo ne bihi aynan Maodo ne yumathiluhu Maodo ne wa idlalun bi ay Maodo ne wa irhasun lahu مودنا سراج من أسر مودنا وعين قد مودنا فيا عجبا لذي مودنا ونور الأصل مودنا وفي صلب لئل مودنا ويسمع mawdo ne sabaikuhu moolu teewalim laaw mawdo ne law xablal wilaadati mawdo مودا ومكحولا ومسرورا مودا أتى يوم مودا يسبح مودا برور الزن مودا وبيت الله مودا فيا لله من مودا البيت مودنا يكبر مودنا دعا رحبان أنجا مودنا تتابهت الهوى مودنا بها حلل مودنا بها حل الكواكب مودنا كما حلل مودنا وللإيوان وش مودنا شهير وال مودنا بنيران فرس مودنا وما لل مولانا بأن العين مودنا ترمت لي مود نيز للأصنام هل مود نيز الأوثان مود لما في جوفها إن مود يطرب كل ما سام جاب بسائل غرجلي يميلكما ودمتم مودا فمفتقر مفتقر بمفتقر مودا يضاعف دوفه فيك مودا وعام ثم سهر مودا اتى فيك العدى غرجلي سرور فيك مودنا وعيد دون مودنا ربيع واسنا في قرقنا بامل فيلي مودنا ومولده بي مودنا ومولده بي قرقنا ففي تعظيمي موضني على سرر موضني وناس كفر ذو موضني ونازعتي موضني لحنان موضني لسان القدر موضني به توسد موضع نبي تاب الإله موضع نبيه سنون ذا يلا موضع نبيه بشر موضع نبيه قال العليا موضن به ينقوب مرتا موضن به لوط ينت موضن به زبيك موضن به ذو الجب موضن به ذو الفلك أيدل موضن به موسى موضن به ذو الملك مولد نبي نلنا فنس مولد ندى الإطناب قل كل ndekete ñun ci nabi lañu amee uni la Maodo ne ci nabi lañu amee uni Maodo ne wa yawmun xam tariirun Maodo ne aboosul sar yàlla may nu ilaahiya yàlla may nu ilaahiya yàlla may nu ilaahiya yàlla may nu ilaahi tawbatan mawdane ilaahi rabbana mawdane wa asli wal mawdane wa ahbaabi wazil مودنا إلينا مع جميع مودنا وألف الضعف قرقنا من الصلوات مودنا سلام متنا ذلك مودنا يعم الآل حين مودنا وإن النظم يكفي أفنظمي حفظ حوز سجوني إلهي يا إلهي توبة قبل المنون